asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi fi teew taalibe yi kilifay àdduna yi association islamique yi noo ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi ci tooge jataayu sëriñ sëriñ Touba di Cheikh Sidil di ki teg rakam sëriñ Ahmadul Mokhtar ak njabootu sëriñ Touba gi fi teew yépp ginnaaw loolu ñoo ngi sant ñëpp ñi fi teew ak ñi amoon yéene teew fi te suñu borom dogalu ko ñoo ngi sant fédération bi baax a baax a baax di sant nag Cheikh Abdoul Ahad mi jiite éducation ak mboolem ñi mu àndaloon di saytu liggéey bi ndaxte bi ñu defee congrès bi ñaari fan lañ ci teg boobu ba léegi ñu ngi liggéey boobu ba léegi nopp bu dégg ba cëg bi ci ñu ngi koy sant bu baax a baax euh, ndaje mi dafa aju ci lu yàlla bëgg lu yàlla fonk ko yonte bi fonk ko Sëriñ Tuubaa fonk ko mu yar ak njàngale euh, Sëriñ Cheikh amoon ci ay taxawaay yu rëy liggéey ci liggéey yu rëy yu am solo àndoon ko ak njabootam dale yi di Serigne Mouhamed Mbacke mi nga xam ne moo nekkoon loxoom ci ak nekkam bi nga xam ne Serigne bi jóge na fi Serigne Mouhamed Mbacke yeesal liggéey boobu wax nañ ko fi léegi moo fi tabax lycée bi nga xam ne moo nekk euh, Njaareem ak yeneen école yu nekk Taïf ak Touba ñi seen tam ñi sam tamit Serigne Abdou Fatah mi nga xam ne loxo mos sa jóg fédération bi ñu ko sosee ba léegi bi ñu ko sosee ba léegi loxoom mi ngi ci jamonoy Sëriñ Cheikh ba léegi lu nekk daj ko ci itam yëpp kenn ko defal ñoo ngi sant bu baax a baax euh, di sant ñi nga xam ne ñoom la ñoom ñoom la am doon liggéey di sant euh, soxna Mame Boussa ko waxee rek mel ne yu bal na yar ak jàngale ak tasaay xam-xam jamono ji def ko soxla boobu ndax mooy suñu njëriñ tey ak ëllëg kon nag li ñu war def mooy ñu kon nag ñu ngi soññ soññ soññ soññ suñu bopp di soññ mboolem taalibe yi ngir ñu feddali feddali suñu laxasaay ba li ci mag ñi bëggoon ñu am ko ci ñoo ngi itam ñaan ñëpp bépp jullit ak fu mën fu mën a nekk bépp gépp kër bépp jullit ñu jàppale ñu ci liggéey bi ndax liggéey liggéey bi ñëpp bëgg nañ ci ay ndimbal ci bu fànn bu ne noo sant euh, sëñ Moustapha Mouhamed euh, sëñ Abdoul Ahad wax na ko léegi bis bi fu fu amee réussite loxoom loxoom a ci loxoom a ci ñoo ngi sant bu baax a baax a baax di ko ñaan fan bu gudd ànd ak bu wér di dool sant ñëpp nag bàyyi wuñ kenn di leen gërëm